ndax jamono ji bu fekkee processus bi tàmbaliwaatuñu ko mooy nekk candidat wu euh, euh, Pastef euh, wala sax candidat wu Sonko bëgg nañu xam aussi kan mooy Diomaye Faye ci fekkee mën nga ci wax dara. ku mhm. xam nga des wax mhm. Mhm. mais mën nga wax li ñu ci xam xam naa ni Diomaye am na ci loo xam ni foog naa ni ñëpp reconnaître nañ ko ay qualité mooy que ni Diomaye ku dal la. Mm-hmm. Euh, ku teey la te bëriwul wax. mais diggante Diomaye ak euh, Ousmane. Mm-hmm. xam nga nit ñi dañu jël léegi slogan naan ba Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye. c'est-à-dire que comme li ma wax rek des fois nit ñi ci kàddu lañ koy yemale. Mm-hmm. mais buñ ko xoolee ci jëfin moo gën a dëggu sax kàddu gi. maanaam seen proximité. et puis yàlla dafa boole seen trajectoire. waaw euh, que. yi dafa mës a nekk rakku Ousmane ci wàll wu nekk. Mhm. parce que diplôme bu Ousmane am rek Diomaye am na ko. mais chaque fois Ousmane moo koy njëkk a am. Mhm. ba fu Ousmane dem Diomaye dem ñëw jaar ENA. ba ci syndicat bi. booy domaine ba bi ñuy créé syndicat bi ba ni Ousmane yore syndicat bi bàyyi keneen jël keneen jël Basirou jël na. Mhm. donc maanaam donnoo bi boobu ba léegi dafay rafet. kon tey bu fekkee ne dañ ne woon dañuy def Ousmane candidat far yàlla nangoogul ñu def ko Diomaye et que naa la wax leen de. gis nga mm-hmm. Ousmane Sonko. Mm-hmm. bu amee juróomi nit yoo xam ni da leen di wax boppam maanaam day wéet ak ñoom di nas ak nocc te yàlla rek tax Diomaye ci la bokk. alhamdulilah te Ousmane du ku nekk lay nas ak nolli mun naa ne. ah ba ma ñeewul yàlla de xam naa ne gënuma jege Diomaye Ousmane. Mhm. te ñëpp xam nañ jege naa Ousmane mais mun naa naatam na ni man gënuma jege euh, Diomaye Ousmane cest à que nag bu dee ci wàllu ànd bi man la ñuy gis. Mhm. mais bu dee ci wàllu nas nocc ak waxtaan man gënuma ci jege Diomaye et mieux euh, seen relation ñu bari xamuñu ko. Mhm. mais Diomaye tuddee na Ousmane Doom. Mm-hmm. est-ce que te li gën a garaaw mooy bi mu koy tuddee doom Ousmane yëgu ko de. Mm-hmm. te politique taxul de parce que léegi Ousmane il y un mois bi ñu defee benn recensement pour trondo yi bu ma juumul bi ñu ci waxtaanee ak Fatima ñu ngi woon presque ci trois cent douze trondo. Oh! yoo xam ne actuellement Ousmane am na. soixante soixante trois cent trois cent douze yoo xam ne actuellement am na <laughs> dem na ba ay góor am na sax juróomi trondo yoo xam ne ay jigéen lañ. Mm-hmm. Mbete Mbaye Diop mais dañ ci mujjee yokk A pour tuddee ko Ousmane mais ñoom moom lañ ko tuddee. te gis nga Basirou tuddee na Ousmane mais li gën a grave wax mu la bi ñu koy tuddee doom Ousmane yëg ko mais même tudd bi jour tudd bokk ko sax Ousmane. te ci jafe-jafe la ko fekkoon. déedéet. xale bi mag la. moom la doon ca ca bañ koy rajee. man boobu laay wax quoi man maa xëy ñu nekk ci oto bi di dem di ba ay booru treize heures quatorze heures mu ne ma tooy il faut que ñu dem gaaw ñi añ añi kër ga ndax dañuy génnaat ma ne ko mais duñ jaar kër Bassirou rek añ mu ne ma boobu boobu batu dibiteri yu mbaari bi nekk euh, Ouest Sud Foire mhm. foofu la Bassirou dëkkoon mu ne ma jaar kër Bassirou añ ma ne ko mais Bassirou dafay tudd tey mu ne ma tudd mu ne ko ah mu ne ma mais Bassirou nan la ñemee tudd te waxuma ko mu ne ko ah man de wax na ma ko waaye dana woon bu ma la wax dara mu ne ma non man du ma xuloo ak Basiru mari laay xulool mooy jabaru Basiru nañ dem ñu ñëw muy xuloo ak mari benn femme moo ko romb rek tàcc ko ndokkale dugg fi génn fii ay ay pap ay turandoo xale baa ngi nii lii la ci Ousmane am. ndeysaan lii. Mhm. kon loolu jàpp naa ni ay turu ji xajul foofu xëccoo xajul foofu. noonu noonoo xajul foofu te audio Ousmane bi mujjee génn fanaan la mu wax ci Basiru ba ñuy yaakaar ne audio bi. prison ba la ko defee. <laughs> woon voilà waaye yow yow président yow léegi yow heureusement sa waay mais tey lii nag mooy wane ne métier mi gëj naa léegi euh, président ji bi. waaw doo ko bàyyi mu àggale ci ci ci Diomaye. am ah, pare na kay pare na mais ci. boo boole ko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko senn ci sonn ci ay ay ay ay waajuram. Mhm. waaw parce que xam nga seen fi mu fi mu jógee. Mhm. koo xam. dëgg la xam na ni jógewul ci famille riche. waaw. ba li ko war ci waajuram yëpp presque waa këram yëpp ñu ngi dëkk ak moom. moom moom jomaay mais nit nag boo noppee ñu jàpp ni da nga yambar wala da nga soxor. Mm-hmm. mais alors que nature la de nature il est calme posé euh, très généreux nag waaw. mais moom daal jomaay daal comme li ñu wax rek mooy Ousmane Ousmane mooy. Ousmane mooy jomaay. d'accord ndax léegi nag ñoo bokkul parce que. Ousmane moom gis nga ko moom. waa léegi waa léegi président Ousmane fan la doon defee vidéo bi ak kañ la ko def. mais cité kër googu la ko defee këram. këram la ko defee ci kaw xanaa ca kaw la ko doon defee xam nga période bi ñu la barricadé. Hmm. da ngay am jot man des fois man bu ma añee pare man maa ngi ci néeg bay nelaw xam nga man lijjanti mooy. Hmm. man daal daan naa gis tout le temps mu ne maa ngi dem ci salle bi ci kaw maa ngi dem ci salle bi ci kaw mais munu ma la woon jort man man. kenn loolu lay def. yàlla rek tax na musuma jort que ni loolu. mais dañoo gisoon ministère de la justice communiqué. xam nga bon yu mu ci waxoon noonu sax jarul ñu ciy jaaraat. Mm-hmm. léegi vidéo bi dafa nekk actualité ba nga xam ne pour nit wax la ne la lii démb la par rapport ak ginnaaw suba lañ ko teg. Mm-hmm. mais ca démb ja ak ca gin ak ca après demain ba li xew moom du ko dugal ci vidéo bi moo tax léegi nit ñi ne pour seetal ko. day jafe day xaw a jafe. mais nag am na. pourtant boo bi nga joxe date bi sax naan la 15 juillet. Mm-hmm. benn bi 15 juillet bi je crois dafa coïncider sax ak anniversaire am. waaw mm-hmm. juillet le 14 la woon la ah, mm-hmm. waaw béy période boobu. la ko doon def. loolu kay kenn du ko naatable c'est que ñi ci li ñuy laaj mooy Ousmane nan la mënee am lecture. mais nag mais nag foofu ah. ni lii yëpp après dafay dugg prison après moo jaaxal askan wi ñeen da déglu sax euh, ñoo xamante ni peut-être ci ci euh, mouvance présidentielle dañuy wax ñoom gëmuñu ba tey que ni vidéo bu yàgg la li ñuy wax mooy que ni lii ci biir prison bi te war nañoo xool kañ la ko enregistré parce que ñoom jàpp nañ ni ci biir prison bi la ko defee. donc lépp du am ci li xew suba moo jaaxal askan am na lu ma tontu woon sànq ci Basiru mm. loolu laa lay tontu ci Ousmane. xam nga dafa am yoo xam ni da ngay dem ci administration pénitentiaire mm-hmm. comme ni ma la waxoon na nga dem pour Basiru ni mu def ba bind ba signé sur l'honneur et tout ça vraiment loolu laa naan la audio enregistrement yi te boo demee xool fi Ousmane nekkee xam ni déjà sax loolu mënul nekk. Mm-hmm. déjà fi ngay jaar ba yegg ci moom contrôle yi fa nekk tout ça tout ça te ñooñu foog naa ni ñëwuñu fa pour lu lu lu ko neex wala naan dañ koy jàppale ndax ñoom seen liggéey la def. Mm-hmm. da di ko euh, booy def sa liggéey nag. non foofu nga ne booy woote sax kenn ñoo taxaw. mu ngi noonu. Mm-hmm. booy woote non non leneen benn jàngat bu ma am ci bi parce que tamit nit doo ko affaire mu wóor na xelam ne koo wër mm-hmm. nga tëj ko 55 jours mën a xalaat. waaw la dem jëndi sport foofu aménager salle boobu ku wax sport wax esprit sain dans son corps sain. ay livre ngay gisaat. kaamilu alxuraan ngay gisaat mais kooku boo ko tëjee defatul benn activité mais bu defee lu raw lii xanaa dañoo dañoo may occasion ah. yeneen yi génn mais bu yeneen yi génnoon. Ah. xam nga affaire yi li décrisper lii yëpp nag. ci mhm. vidéo yooyu la. d'accord moo tax nit ki boo ko tëjee pour moom xel. mënoo tëju daaw ma bind moom da mooy bind man daaw ma bind waaye doon naa sport de parce que boo xoolee sa xam ni <laughs> maa ngi doon sport moom bind rek man may sport ah, ah. mais moom mais moom da ngeen koy laaj ah ci lan noonu euh, président Djibi bi nga nekkee Dakar dem dikk ñëpp gis la yaa ngi actif